سيبي زر في الأزانات سيدة للمسينات مريم فوق تموخينات هند الذي لم يدركي mbokk yi ñu topp ci info 7 comme niñ leen ko waxee woon bisub soxna jaariyatullaahi mariama bu sax xam ngeen ne benn fan moo ci dox ñu yegg ci ñu ngi ci guddi lii di àllarba jàpp li nga xam ne moom moo di alxames bis bi nag jamono ji ñu ngi fi nga xam ne mooy bërëbam ba mën a ji dëkk bu sell bi di poroxaan boo fi yegg ci ñëpp ngi dëgmal ci bërëb bi ñu ngi ki nga xamante nii jëwriñ la nekk fii nii sëñ bi si la ñu nuyu la bàyyi la nga nuyu ñuy seet muntaxaa si la muntaxaa si la asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala ñu ngi leen di baax den baax ci bisu maag bu tedd bi sell bii ñu ñaan yàlla waxtu ne at mu ne ñu ko teewe te at mu ne ñu ànd ak wér fekketal ñaan Seex mu Muntaxa Basiru Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér da yàgga taxaw bis bi liggéey maam bu tedd bu sell bi jërëjëf sëñ Mountakha la yow nga bokk ci ñi nga xam ne yéenay taxawu bërëb bu sell bii di bërëb bu soxna Jaaratu Laay bu sa ne ci rang gi di ko organiser tey jii bërëb bi fi naka la mbir yi doxee ci côté siyaar gi yéen ñi nga xam ne yéen a bërëb bi moom ci katu siyaar bi moom ci ni leen ko mën a waxee li ci ëpp solo mooy gis nga nit ñi nii ñi ñëwee maam góor ñi seen rang ni nii fare nda fare fare fare fare ndajoor gu jigéen seen rang ñu ko fare càmmoñ ku duggee ci porte su porte entrée bu bu ci bunt penku yaa ngay génn ji ba ba ca ba ca des boo siyaare da ngay continuer jaar noonu jigéen ñi ko saale ko noonu. siyaare bi nag moom waxtu na rek ni ni ni ni ñu ko waxee rek liñ ci jublu daal mooy danañ jaatal gan ñi. teeru leen gunge leen di leen dimbale leen sensibiliser bu baax a baax ba kenn ku ci nekk boo dikkee siyaar bi nga bëgg nanga ko bëggee nga ko mën ba àgg soxna si siyaar ko àgg ko say aajo ba balaa déwén waxtu bi sa aajo yi faju moom mu góor mu jigéen di mag di ndaw kenn ku nekk gis nga ko ne itam addi yi na mi fi ñëw nag mu mel ni yére yeeg yi gis nga yére oto baa ngi ne ngay seen yére ñi ngi koy andi ñi di ko def fi ëmb di ko dugal ci oto bi bu feesee ñu yóbbu ko ca magasin denc ko fa ba maagari jàll ñu jébal ko sëriñ bi bu ko defee sëriñ moom moo xam nu mu koy def di ci dimbale néew ju doole yi ak ñi ko ittiwoo di leen ko jox ngir yàlla rek te yaata ngir soxna jaara tey jii nii fii liggéey bi yéen a seere mbir mi ci côté góor ñi ak jigéen ñi ci dem beeg dikk bi loolu kañ la commencé. waaw loolu nag euh, moo ya moo yaboon ne euh, bi mu commencé euh, xaw naa yàgg ndax kuréel jiitu lii. ah Cheikh Moussa moom sëriñ Bassirou Mbacke mi nga xam ne kenn mun a tudd Poroxaan te tuddoo ko yàlla na yàlla yokki la dem taal suy barkeem ndax lu lu lu luy Poroxaan rek ku koy tudd moom ngay tudd waaw ndax moo wutu moo fi wutu waajur mu te di Cheikh seex euh, Mouhamed Bassir kon lii yàgg na saytu bi nii yàgg na ndax ay dongaam lu ko doon defloo ñu di ko def bi mu fi jógee itam nag. boo rakam ju baax ju tedd seex Cheikh Mountakha wutu ko di ko def loo ay dongaam yoo xam ne dañoo tërbee yoo bàyyi ñi nga fi ñëpp dañoo tërbee yoo bàyyi ànd ak seen di ko def moo ñuy yoor siila yi kuréel bi nag mu ngi tudd ahlu tarbiya li kulli man yaxtamu xidmatu say xadim maanaam ñooñu nit yi tërbi xam nañoo ñoo ba am ngërëm ñëw fii di liggéey waaye nag ñu yaatal ko li ku li mën a képp koo xam ne nam ma ngaa liggéey Sëñ Tuubaa itam nga bokk ci ñu lay wax soppee wala ku bëgg liggéey Sëñ Tuubaa kon ñooñu ñëpp dañ ci ànd. di góor ñi ak jigéen ñi ñoom nga gis ñu yor siile yi ñu bind ci amalu tërbiya moo seen symbole ak seeni i ñoom ñoo bi boo demee teen ba ñoom nga fay fekk ñuy dimbale nit ña di leen duyal ndox leen dimbale ñu am ndox di saar boo demee ci kër maam jaare gan ñi fii ñëw ñoo leen di dalal yor appartement yi di leen yor añ di leen yor reer di leen di ndekki di leen wutal lu ñuy sangoo di leen wutal lu jàpp leen dox la yónneen boo ñëwee ci barab bi ñu ñoom nga fekk nii boo demee ci jumaa jee ci ginnaaw fi ñu juleen ñoom nga fi fekk kon daal ñoom ñoo yore organisation boobu pour dimbale nit ñi ci seen ziar bi ñuy ziaree soxna ngir bëgg a jariñu tey jii ni organisation boobu ñu bëree bëri ñoo ci nekk euh, bi ngeen ko dooree avant màggal gi ñaata fan bala ñu yegg si màggal gi ak kañ ngeen fi fas yéene jógee ci boobu la liggéey ñaata fan ngeen def ci dëkk bu sell bi. waaw li ci mën a lu ne mën a wax ci gàttal mooy suñu dugg see fii rek ji ji moom commencé nañu. ñu ngi commencé alterné ñu koy wax talaata àllarba alxemes ba ajjuma ci guddi heure yi daal danañu fekk ajjuma ba ba ngay dem onze heures wala minuit waree nag ñu saytu lépp dajale ko jébal ko sëriñ bi door a dindi barrière yi yéen yëpp lu ci nekk fa mu newoon ñu delloo ko fa sëriñ bi yeewu ñu doon dellu ci suñu kër. fii nii siyaar bi naka lay demee dafa am heure boo xam ne ngeen di réserver nit ki ne bu duggee benn temps bi lay def si biir moo xam muy góor wala muy jigéen wala amul heure boo xam ne moom mooy def ay ñaanam ba waxtum jeex mu génn dem. waaw parce que nag itam euh, moom ëppalul kenn def lii dem néew na def lii door a dem waaye nag buñ ko mënee baral nga xam ne kenn ku nekk dangay ngay siyaare. jàll sa morom siyaare ndax euh, ñi nga xam ne ñooy dem Tuubaa ci màggal googu gu mag googu ñooy da ñëw ci poroxaan gi waaye nag fii kon dafay mel ni ñaari barabu siyaar moo fi ne muy barabu bu barabu soxna si ak teen bi. lii daje Touba léegi nag bu ñu dee dëgg bëgg a daje ci benn benn uh, barab bi daje ci teen bi day sétiré kon du laaj nga jël fi temps bopp da ngay war mos rek sa morom mos parce que bi nga jógee sa kër dagg sa yite ngir ñëw rek boolu sa yéene àggoon kon li war mooy bàyyil sa xel sa morom nga dugg rek ñaan Sadio boo waxee daanaka boo boo boo duggee ci biir daan Sadio faju na ndax ñi Cheikh mu Cheikh mu Cheikh Moustapha ñi Cheikh du Fallil ñu juyaloo kon boobu xat du sa noonu mais fii ñëpp benn jubluwaay la bu ñu fi jógee teen ba la kon léegi day laaj kenn ku dégg nga def euh, bàyyi sa xel sa morom nga ñëw barkeelu yaatal ko mu barkeelu bu ko dee bala ñu àgg si àjjuma ji ñëpp mën a siyaar dem. tey jii ku ñëw fii nii pour def siyaaram gis nañ jamono fi mu toll ñii di sinap ñii di def loolu yan tere ngeen di tere si bërëb bi koo xam ne bu fi yegsee noonu la war a comporter waaw sinon moom fii moom li ñu fi waaye li ñu fi waaye mooy li li nga xam ne moom moom moo dëppoo solo soxna si mooy yar teggin jàng alxuraan jàng xasida loolu rek lañuy soxla soxla wuñu fi nekk ay sinap ay ay ay ay kii nuñ koy xamul xamul nuñ ko naan naka lañ koy waxee ti maanaam maanaam maanaam maanaam kii waaw yooyu mu soxlawuñ ko fi ndax loolu ah, dëppwul ak barab bi dëppwul itam dëkk bi dëppwul itam lu baax li nga xam ne moom la ñu fi sàkku li ñu fi soxla gu ñëw toroxlu fi tàllal say loxo ñaan ndax ku tool ni soxna jaari dama Mariama Bousso nga xam ne eh, jaari laa ko dëkkaaleeg boroomam kooku boo ñëwee ci moom war nga fay tal leneen du loolu war nga fee sàkk loo xam ne boo nga sant mu amal la njëriñ waaye sinab moom ak yooyu moom amul njëriñ bëgguñu ko ko fi def ku koy defee xanaa dañu dugg waaye bu na gisee dañ ko aaye jii nii soxna soosee ñu koy màggalal yéen ngeen ne ci bërëb bi di ko teelu boo amee looy tëjee rek si soxna si nga xam ne soxna jaara la dundam gi ci ay at limuwul mais lim liggéey àddina ñëpp ci teg bët teg ci loxo ba xam ne fanweeri at ak ñett la dund waaye moom képp mooy jigéen ju am màggal ci àddina wërngal këpp. waaw loolu li koy waral mooy pas-pas ak yitte ak farlu waaw pas-pas yitte farlu ndax li nga xam ne loolu lépp nag ah, ngëm-ngëm moo koy moo koy laal imaan ak bëgg comme dafa bëgg namu jaayante moo 33 cent yi dund ko liggéey fi liggéey bu rëy bi nga xam ne tey boo demee ci daaram cee ñu ñuy wax jaara ji nga fekk fa kalaas bu ma juróomi téeméer yi yoo xam ne ñëpp soxna jaarla lañ moom rek moo ko am mbaa junni daa soxna soxna ay junni junni junni daayira am junni junni turandoo moom rek la waaye lépp pas-pas ak itte ak farlu moo ko may ndax suñu borom moom lépp da ko yor am na yërmaane boo boo boo boo boo boo boo góorgóorloo rek li nga bëgg lépp du nga xam loolu loolu Sëñ Tuubaa wax ci kii rek maa walal baal waa ko fëgg albaawa bunt ba walaaj mu taabi walaaj mu nooru maanaam ku fëgg buntu taaw fa yàgg fa nooru yàgg fa rek ngir itte ba yàgg da nga am li nga soxla. sëñ Mountakha Sylla boo amee kàddu yooyu tàggatoo moo xam ñaax ñi ngay liggéey ci liggéey bi ak soññ yi nga xam ne yaa ngi koy soññ mbokki taalibe yi ñëw fi yan kàddu lay doon. waaw mooy euh, li ma wax rek pas-pas góorgóorlu bu baax xam ne ku fi ñëw jariñu moo la fendi ku fi ñëw te jariñu ni ba boo ñibbee nga jariñ waaye bu fi ñëw jëlu fi coonam kese doo jariñu loolu nag li ma la waxoon rek moo koy mooy ite ak pas-pas ite ak pas-pas waaw boo ko defee rek li nga fi li nga bu sàkku léegi dong loolu nag la la la koy la koy gën a dëgëral mooy yar ak teggin waaw lu mu ko <laughs> waaw kon ñu delloo lu baax di ñaan tee koy ati ati ati at di sant ñëpp dëgg la ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ñaan Seexul Xadim Seex Muntaxa mu yàgg fi te wér yàgg fi taalib yi yëpp li mu naalal liggéey suñu moo def ko ba def lu kawe njortam kawe suñu njortam yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah saa borom def nu jàmm ci réew mi ak feex suutura ak xéewal ak barke wasalaam yéen waa set di fii jërëjëf kooku mooy sëñ Muntaxa Sylla la bokk ci yor bërëb bi fii si bërëbu Soxna Jaara bi ci wàllum للموسنات مريم فوق تموخينات هند الذي لم يدرك